Thank <laughs> you. fiñ koy tambalé en ce 25 de avril 2024, fi ci VIP People TV dañuy dem feulé ci Amnesty National ginnaaw bi nga xamanteni kiko jité ko di Sidi Gassama mi ngi daldi invité ki nga xamanteni moy le nouveau président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mu daldi abroger li nga xamanteni mom lañu tuddé won arrêté Ousmane Ngom ginnaaw lolu mom mi nga xamanteni moy directeur exécutif bi ñu tuddé Amnesty International fi ci Sénégal mom Sidi Gassama daldi na invité ki nga xamanteni et son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye dembu ci Babi, bi ginnaw lol dal pour mu abroger ligne ñu dippee arrêté Ousmane Gom, bi nga xamanteni mo interdire manifestation politique jëmele ko fi nga xamanteni centre ville bu Dakar suñu sukkandikoo ci atum 2011 King nga xamanteni mo ancien ministre de l'Intérieur, li Ousmane Ngom fa sukkandiku won ci benn arrêté bo xamanteni da fay daldi interdire lépp luy manifestation jëmele ko ci espace bi nga xamanteni mo dox ci avenue Elhadj Malick Sy ak li di Cap Manuel ak lepp lo xamanteni mo nek ci borom jëmele ko fi nga xamanteni moy monument de la renaissance ak ci kanamu yenn hôpitaux yi ba tey suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni mooy le président exécutif de Amnesty International di Sidi Gassama

jëmale ko ci justice ak li di règlement d'engagement lu police Sidi Gassama bi mu intervenir ainsi ci occasion bi nga xamante mo waral publication bi nga xamante mo moo ci dernier rapport Amnesty International jéemale ko ci situation bi nga xamante lepp lu soxal droit de l'homme ak droit humain à travers le monde ci période bi nga xamanteni moy mooy atum 2023 gis nañ ci dal lo xamanteni marqué na Sénégal jëmele ko ci ben répression jaxlé ko ci ay droit ak liberté d'expression ak ay association yo xamanteni dañu nekk ci réunion pacifique notamment li nga xamanteni moy ay arrestation arbitraire ay journalistes ay militants ak ay défenseurs des droits humains mu dellu si mom moom Sidi Gama Sama xam ni que ci diggante mars 2021 ak juin 2023 suñu sukkuliko lu toll ci jurum fukki nit ak juróom ben daal nañu ñak seen bakkan ñu faat len ci li nga xamanteni moy cadre opération jëmale ko ci maintien de l'ordre jarle ko ci manifestation yi nga xamanteni ay junni junni nit ño xamanteni tay gañu nañ ci ba nopi daldi amul ben information judiciaire bo xamanteni ni ubbi nañ ko jëmale ko ci li nga xamanteni ni ñi faatu ci manifestation yi ñi gagne ci manifestation yi mu doon exaction yoo xamante ni kenn xamul ban succès la am suñu sukkandikoo ba tay ci mom mii di Sidi Gassama mi ngi sédé dal ke li nga xamanteni monam moy mooy mbébétam dafa jëm ci manifester dal di accordé li nga xamanteni moy impunité jëmale ko ci ñi nga xamanteni ni ñoo manifesté wu jëmale ko ci loi d'amnistie bi ñu adopté par ki nga xamanteni moy le gouvernement sortant bu président Macky Sall moy benn fort constat bi nga xamanteni ki di directeur exécutif Amnesty National di Sidi Gassama suñu sukkandikoo ci xalatam dal indi na dal ay réformes majeures yo xamanteni xamante dafa profonde te ñu war ko envisager jëmale ko ci benn optique boo xamanteni faire dafay renforcer davantage les lu soxal li nga xamanteni mooy droit humain ak li nga xamanteni mooy spécifiquement dafa soxal ñi nga xamanteni ni mooy jigéen ñi ak xale yi ak talibé yi di élèves yi nga xamanteni ñoo nekk ci école coranique en tout cas qui di Sidi Gassama di directeur exécutif Amnesty International mi ngi daal di invité kii di le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mou daldi li nga xamanteni moy arrêté Ousmane Ngom bi done interdire manifestation pacifique wara a am fofu ci avenue El Hadj Sy jëm ba Cap Manuel ak li nga xamanteni moy ci monument de la Renaissance ak yenn hôpitaux pour ko ki nit ku nek rek sentir am les manifestation Muldali amal. <laughs>